comme ni ma ko waxee euh, muy ndaw yi dee ci dëkk bi ci gaal yi gis nga monsieur kamara dëkk dañ koy organiser gis nga boo nee tey LCIS tudd nga injustice donc ñun one bien placé pour wax ci li nga xam ni mooy injustice bi parce que injustice je peux dire moo yóbbee ndaw yooyu yépp ñu ne nañ dugg ci gaal gi dem léegi nga wax ne am na ku ñu épinglé ci affaire ay milliards xaw ma jàpp ma tur bi dégg na dégg naa euh, wax nañ fi yàggul affaire u 45 milliards armement yu ñu jënd wax nañ fi daaw u daaw géej 766 milliards yi nga xam ni état def na ko ci inondation euh, mënuñu xam ne lañ ko dépensé wax nañ fi 29 euh, milliards u product boo xam ne leer naag leerul atte nañ attewuñu xaw ma en tout cas ce qui est sûr c'est que tudd nañ 29 milliards. ak yeneen ak yeneen donc milliards yëpp ñuy dégg kër yooyu yëpp di dem terrain yëpp ñuy jël di ko séddoo euh, dafa mel ni ndaw ñi ak nit ñi ci dëkk bi ñoom dañ ci bokkul c'est-à-dire euh, dafa mel ni benn euh, groupe de personnes ñoom lañ fi teg ñoom rek ne leen wóolu nañ leen on vous donne tous les pouvoirs diriger leen dëkk bi faites sa qui est nécessaire pour que le pays avance mais dafa mel ni ñoom dañuy toog lépp rek yam entre ñoom donc les jeunes benn instant je pense que dañuy dañuy euh, dañ dul gisat seen bopp ci dëkk bi moo tax lum leen jaral dañ koy def pour génn réew mi surtout nag quand ils se disent quand que Barça wala Barsaq bu ñu waree dem dañuy dem kenn mun ci dara donc damay taxaw foofu en attendant ñu xool xëy na ci kanam dinañ dinañ gën a mën a dinañ gën a mën a kii ah, waa su fekkee permettre nga ma ko surtout quand un jeune te dit Barça wala Barsaq euh, foofu jeune boobu munoo ko jox. ay milliards munoo ko jox ay kër mënoo ko jox ay oto ba mu ne la je vais rester dans le pays du ko def euh, une fois en émission rajo j'ai invité un jeune boo xam ni dem na deux fois mu ma lii ak lii ak lii la ñuy daj ma ne ko ñaata ngeen kekk mu ne ma parfois on est 200 personnes sur une pirogue dans une pirogue 200 euh, personnes ku nekk fay 400 000 loolu vite fait ko calculer c'est 80 millions mais combien de projets combien de choses peuvent se faire avec 80 millions dans dans le pays mu ne ma nag xamal ma ne que y' a pas que des sénégalais y' a des guinéens y' a des maliens y' a te ñun ñëpp on ne se connaît pas. donc euh, pour nga def loolu nga wax noonu c' est c' est un peu compliqué luy metti la du mën a nekk loolu aussi ñu mën ko comprendre mais ñu xam ni aussi 80 millions yooyu par exemple ñu calculer du du dara comparé tous ces milliards ñuy dégg du dara comparé problème yi yëpp ñuy dégg ci dëkk bi du dara comparé. ndaw yi nga xam ne ñu ngi fi di rey seen bopp di ñafe di liggéey suba ak ngoon benn ouvrier par exemple tu prends mason maçon tu prends un menuisier tu prends un mécanicien ñuy liggéey daan seen doole mais ce qui est sûr et ce qui est plus important mooy que doomu ministre bi toog ci gouvernement bi wala doomu président wala doomu député wala doomu keneen dàq ñu liggéey ces gens je prends l'exemple de la 7 soo xoolee ñi fi nekk ay jeunes lañ yeewu xëy di daan seen doole du matin au soir et pourtant ñi ci nguur gi dàq leen liggéey donc ces jeunes ont des problèmes ak ñi nga xam ne ñoom la ñu wóolu jox leen leen leneen liggéey leen wóolu nañ leen teg leen leen ci kanam doxal leen on voit que ñoom ils ont tous les privilèges et que nous on est. non a dem. je dédouane pas les jeunes je et je ne cautionne pas le fait que nit jël pirogue di dem je ne le cautionne pas et j'encourage personne à le faire parce que boo xoolee dama la ne invité naa nit vous êtes combien dans une pirogue plus ou man tu ma doon 10 millions je te mets un projet léegi et j'avance donc je ne cautionne pas le fait que parce que il faut mu tamit je ne fait que jeunes yi di génn mais dañuy génn à cause d'une raison loo gis y a une cause ils ils à cause de maintenant quelles sont les solutions peut-être qu'on parlera des solutions mais il y a une cause il y a une cause donc c'est de ça que j'ai parlé